أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن والاهم وطبئهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk Sénégal mbokk diaspora bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal xaq ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bokk nu jégal bi jaahi rasulillahi salawatullahi alayhi wa sallama dellu siwaat nañ fii ci seen télévision sbt média point com àndandoo ko ak oustaz Pape Mbeng fa tabarakallahu ak waa sbt média point com yëpp ñu àndandoo tey dellu siwaat tabarakallahu bokk ak yéen tiis bi nga xam ma wàcc sunu kaw waaye wàcc ci umma islam gi yëpp fa tabarakallahu di xalifa sëriñ euh, Abdullahi Thiaw Laay ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla yeesal yërmandeem ci moom tabarakallahu tiis bi daal ci réew umma islam waaye daal ci tabarakallah ahlu laayeen yëpp tax sbt media point com tabarakallahu ak euh, directeur général bi ak fa tabarakallahu technicien yi nekk ci kër gi yëpp fa tabarakallahu ñu jël programme bi nga xam moom la sbt doxee yëpp fa mu lépp fa tabarakallahu ne dañ koy àndandoo ak fa tabarakallahu ahlu laayeen ndax tey l'islam moo ñàkk diine moo ñàkk waaye nag képp koy wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ñàkk nga fa tabarakallahu moo tax ñu jël programme bi yëpp jagleel ko ahlullah yéen waa waaye jagleel ko itam jullitu yàlla yëpp fa tabarakallahu di ñaan yàlla subhanahu wa taala sëriñ abdullahi thiaw laay yàlla na dajeek leeru mag ñi waaye yàlla na yàlla wa taala yeesu leer man dem ci ñoom waaye di ko jaale waa yof yëpp nga xam ne fa mooy dëkkuwaayam waaye di ko jaale fa tabarakallahu laayeen yëpp yëpp yëpp yëpp fa tabarakallahu nga xam ne kenn la woon ci diine ji waaye kenn la woon ci ahlul islam ndax nit la woon koo xam ne ni soo addoowaan rek fa tabarakallahu nga xam ni li ko maam yi bàyyeel ak waajur yi fa tabarakallahu mu ngi ciy liggéey waaye mu ngi ciy bay waaram fa tabarakallahu ba bis bi nga xam ni fa tabarakallahu ci la yàlla jeexal liggéeyam fa tabarakallahu nga xam ne fa tabarakallahu mag ñi kenn du ñoom waaye ku xool ahlul lépp loo xam dox na ci sunna ñoo koy doxal ndax mën naa ni bokk na ci dëkk yi nga xam ne ni boo fa demee mënoo xam seen sant ñoom ñëpp koo ci waxal rek laay maxtaar laay la ñu lay wax lu tax parce que seen kilifa yi def nañ ci ñoom benn tarbiya boo xam ne dem nañu ba mënoo xàmmee ku am ak ku ñàkk mënoo xàmmee milliardaire ak millionnaire mënoo xàmmee lu dul tarbiyatul diine bi nga xam moom la ñu def ci ñoom fa tabarakallahu waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxoon na ni jamono bu kilifa génne àdduna rek islaam na asamaan dina jooy suuf jooy waaye lislaam ñàkk na lu tax parce que kenn ci ponkalu diine yi kenn ci kàngamu diine yi moo dem muy kan sëriñ Abdullahi Thiaw Laay ñu koy jaale bu baax a baax a baax a baax waaye nag lii jàngale la ci diine ji ndax ku xool tey fi réew mi toll ak mbas mi wàcc sunu kaw nga xam ne bi mu wàccee sunu kaw ba léegi mu ngi ree tabàyyiwul te li ñu digge woon li ñu digle yëpp ñu ngi koy def wax nañu ne ñàkku leen ñëpp dem nañu ñàkku wala boog ñenn ci doomu aadama yi ñu ngi ñàkku am na ñu ne ñàkk yi sax mooy rey am na ñu ne reyul allahu alam ndax garab bi nga naan wér am na ko naan dee am na ñoo xam ne ñàkkuñ te ñu ngi dem am ñoo xam ñàkku nañ di dem kon yàlla subhanahu wa taala mooy jël mais du nit mooy rey mbokk yi nañ leen tuub delluwaat ci yàlla mbokk yi nañ leen tuub te delluwaat ci yàlla yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni man kenn du ma jaamu kenn du ma jaamu ci làmbatu kenn du ma jaamu te doo xam waaye da nga may jaamu ba pare balaa nga may jaamu da nga may yàlla subhanahu wa taala nee kenn du ma jaamu ci réer waaye yàlla subhanahu wa taala waxoon na ni jamono bu ngeen demee ba mooy yàlla gi bari ma leen mbokk yi yëg ngeen réew mi ñu nekk yàlla subhanahu wa taala waxoon na ni fexe leen ba teg ba nit nit ku nekk na nga fexe di dox ci dëgg ñaari dëgg nag moo am ñetti dëgg amul mbokk yu dëgg bi nga bi nga organiser sa bopp jàppee ko dëgg tamuy fen yow la intéressé wala concerné mais am na dëgg boo xam ni yàlla subhanahu wa taala yàlla rek ay dëgg allah huwa alxaq alxaq huwa allah yàllaay dëgg réew moo xam ne dem nañu ba fen daanaka valeur la ci réew mi mbokk yi nañ defaraat jikko yi réew moo xam ne mooy yàlla gi tasaaroo na mbokk yi nañ defaraat jikko yi mbokk réew moo xam ne ni waxuma sax mooy yàlla tasaaroo na waxuma sax tabaarakallaahu waaye ngóor jigéen amul benn xeet boo xam ni daan nga amal ngóor jigéen ci sa biir xeet te yàlla alagu la ñu ñitu yent yàlla lu tan alayhi salaam ngóor jigéen gu tasaaroo moo tax yàlla alak leen mbokk yi xool leen tey góor jigéen nañ ko promouvoir promouvoir mbokk yi nga taxaw ci saw ci kaw ci kaw ci kaw estrade nekk ci digg spectacle fecc ba fóonante ñu lay gis nga nekk góor ñaari góor fóonante ñu koy gis ngeen xëy ñu lay xaar nga war a génn jéggalu askan wi yëpp ne maa ngi jéggalu nga génn taxawee ci beneen façon boo xam ne ni sax mbokk yi sa nawle yi ngay yeewal ci réew mi yaakaaruñu woon ne noonu ngay waxee kon mbokk yi nañ defaraat jikko yi mbokk yi gis ngeen góor jigéen amul benn xeet boo xam ne nii nitu yonte yàlla luut ya bañ ko amalee yàlla daf leen a alag kon buñ ko defee te yàlla alagunu rek am na ku nu yàlla rusee mbokk yi nañ leen defaraat jikko yi nañu leen defaraat jikko yi ci façon yi réew mi doxee ji actuellement nii dee gi bari na mbas maa ngi fi mu ngi rey nit ñaa ngi jël gel ñu ngi koy diwoo nit ñaa ngi takk masque tey la ñu gën a set tey la ñu gën a silwise wax naa ko ci waxtaan yu bari ma ne set gee ñu dig la yàllaa ko jëkk a sig la ndax inna allaha tawaabun yuhibbul mutatahirin yàlla subhanahu wa taala dafa set mais dafa bëgg ku sell yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne anazafatu min al iman set ci gëm yàlla la bokk kon bu dee set rek l'islam moo ko jëkk a bëgg waaye fexe ba tàggat sa jikko ba nit ñi duñu yàqoo ci yow loolu laneen la mbokk yi yàlla subhanahu wa taala yii xew ci jamono yëpp te nit ñi tiituñu ba tey delluwaat ci yàlla ah, na ñu seetaat mbokk yi nit ñaa ngi wut alal ci façon bu gën a ñaaw nit ñi am jaral na leen lu nekk ak façon bu buñ ko amee baax na daanaka tabaarakallaa fi jamono toll muy nit ñi dafa mel dañoo màmm jëm ci mbon fàtte yàlla subhanahu wa taala waaye ku xool tey daal nit juddu na dem nit dem bañ koy bëgg a yaakaar mu dem nit dem ba toll ci digg jamonoom ñu koy yaakaar mu dem nit dem ba yor kër di joxe dépense yor responsabilité yëpp yàlla subhanahu wa taala yóbbu ko lu tax parce que yàlla subhanahu wa taala bàyyu fi kenn dee moom jamono bu ñëwee rek sa jeex nga dem waaye li am solo mooy na nga góorgóorlu ñaan yàlla subhanahu wa taala ba bu dee di ñëw fekk la mu fekk la ci lu baax mbokk yi nag looy bañ dee fekk la ci teel cee jug lépp loo bañ dee fekk la ci teel cee jug ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala sëriñ Abdullahi Thiaw Laay yàlla na subhaanahu wa taala yeesal yërmandeem ci kawam yàlla na dajeek leeru mag ñi waaye leen xam nañu ko mooy fi jamono toll nitu yàlla di dem rek te nit tiituñu ba tey delluwaat ci seen borom ah tabaarakallahu man de lenn xam naa ko ku dem fekkee ji waa Yoff Laayeen wala nga dem ca Cambérène fekk ni ñuy jàngee sa yaram dafay daw sa yaram dafay daw te seen kilifa yi ñooy jiite li ñuy jàng allahumma salli ala muhammadin tabaarakallahu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jël tariqa yëpp jël seeni seeni seeni seeni madox madox madox madox nabi di ko tagg nga xam ne ñoom dañuy boole boo demee ahlu laayen mën naa ni mbooleem lu ñu bind ci mbir na mag ñi boo fa demee dégg ñu koy way kon li yàlla subhanahu wa taala wax ni wastaasimu jamian wala tafarraqu yëpp jullit yëpp nañu ànd ngooy ci buumu yàlla gi waaye wala tafarraqu te buñ tàqali ko benn yoon ñu ngi ci kon fa tabarakallahu mag ñi kenn kenn mën naa ni kenn du leen jam ndax ñu ngi bay seen waar ci diine waaye doomu aadama yi ñoo war a tuub delluwaat yàlla subhanahu wa taala ñaan yàlla subhanahu wa taala réew mi mbon gi fi tasaaroo yàlla na jikko yi defaruwaat iblis yàlla yàlla na saxal ay pexeem ba jikko yi defaruwaat nit ñi delluwaat ci seen borom subhanahu wa taala ñaan yàlla subhanahu wa ko dëkkee yàlla na yàlla def fi jàmm mbas mi ba yàlla wàcce ci réew mi yàlla na na ko fi yàlla jële yàllaa ko nattoo moo ko fi mën a jële yàlla na ko fi wa sallama waaye ñaan yàlla subhanahu wa taala itam ñii nga xam ñoo dëkkee réew mi te seen pexe yëpp yëpp yëpp yëpp moom na la ñuy def ba iblis am ndam yal na yàlla na saxal seen pexe ñi nga xam ñoo dëkk réew mi te seen pexe yëpp yëpp yëpp mooy fexe ba iblis am ndam yal na yàlla na saxal seen pexe waa ñi dëkk réew mi tey liggéeyal sayyiduna Muhammad liggéeyal diine ji di ñaan yàlla subhanahu wa taala muy kilifa diine yi nga xam ñoo dëkk réew mi nga xam ne daanaka ñu ngi wax subaak ngoon Sëriñ Muntaqa sa Tuuba mu ngay wax boo demee ca ahlu ahlu ñeseen ñu ngay wax boo demee ca ahlu kunti yu ñu ngay wax nga dem ca ahlu ñu ngay wax nga dem ca ñu ngay wax nga dem Medina Gunaas ñu ngay wax kon kilifa réew kilifa yi dëkk réew mi yëpp kilifa dine ñu ngi wax waaye nit ñi ñoom maam mu jëm ci bàkkaar ñu war a tuub delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala di wax ne lu lu jaral subhanahu wa taala mu mer ba tëj jàkka yi nga xam te lañ daan daje di ko bàkk moom yàlla subhanahu wa taala yàlla di seetaan mbokk yi mer moomu rëy na mbokk yi nañ leen tuub delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla def fi jàmm réew mi yàlla na def fi jàmm waaye ñu dellu siwaat ci turu sbt media point com àndandoo ko tabaarakallah ak seen mbokk seen xarit oustaz Pape Mbeng waaye àndandoo ko ak euh, tabaarakallah Serigne Mass Ndiaye ak ñi ñu ko àndandool ñëpp di jotalaat sunu njaal di jaale bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Serigne Serigne Abdoulahi Thiaw ñaan yàlla subhanahu wa yàlla na dajeek leeru mag ñi yàlla yàlla yeesa leer mandem ci kawam bi jaahi rasulillahi salawatullahi alayhi wa kenn la woon ci diine lislaam laayan mën naa ne yoof laayan doo ngay dem fekk xale bu juddu ñu may ko jabar at bu jot li ñu takk ci ay sëy ci ay ndaw kenn xamul nu mu toll fa tabaarakallaahu di liggéeyal diine ji ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni mën nañ ko seede ci ñoom kon réew la moo xam nu ñu ngi dund sunna waa ñu ngi liggéeyal diine lislaam yàlla na subhanahu wa taala tabarakallahu yeesal yërmandem ci moom bi jaahi rasulillahi salawatullahi alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi baalu xàq bu baax li la ñu indi woon ne nañ ko àndandoo ak yéen jotal leen sunu njaal ci réew mi ñaan yàlla subhanahu wa taala kilifa dina yi fi des yàlla na yàlla guddal seen fan yokk seen wér bi jaahi rasulillahi salawatullahi alayhi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum salaamun alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu